en réalité c'est-à-dire que il faut qu'on on est dans on est dans un contexte politique loi d'amnistie bi comme ni ko professeur waxee dañuy xaar projet de loi bi bu génnee bu fekkee am na ay affaires yu ñu ci dugal ay Covid yeeg ay pétrole yooyu mais le peuple va rejeter auto systématiquement mais bu fekkee ne c'est une loi d'amnistie pour fee yi amoon mois de juin mais tout le monde mais tout le peuple sait que li amoon mois de juin ñi nekk di purger ñi nekk ñi nekk en prison ñëpp mais c'est des victimes mais si ils s'ils ont la chance mais d'être amnistiés pour des faits yoo xam ne peuple bi ñëpp xam nañ ne c'était à travers des complots mais tant mieux. mais booba ñi dee perte nañu. non ñi dee non xam non xam nga ñi dee amnistie bi. je je comme ni ko professeur waxee non. Birama non am am am amnistie bi c'est pas des hommes c'est des faits. ay faits la ñuy amnistier bu ñu amnistier ñi nga xamoon faits yooyu nga xam ne moo amoon mois de juin c'est-à-dire que ne tous vont recouvrer la liberté avec un régime finissant il a plus enjeu à prolonger des combats c'est c'est des portes déjà moom laa laaj professeur léegi vous pensez que après même beneen régime bu fiy ñëw dina def enquête ci loolu. mais obligatoirement. c'est mais obligatoirement moo tax moo tax moo tax c'est bien mu préciser ne. nañ xaar projet de loi bi xam fan la ay limitam nekk. bu fekkee ne dañ ko def projet de loi boo xam ne fourre la mais on rejette ça systématiquement mais bu fekkee c'est un projet de loi bu amnistier fait yi nga xam ne moom la ñuy reprocher à Diomaye à. après mu nekkaat beneen beneen combat beneen front buy ubbeeku léegi dañuy bàyyi front tro troisième mandat front euh, pro prolonger le mandat ñu attaquer euh, front amnistie bi. on parle d'un autre régime non c'est pas un front. c'est-à-dire que ça c'est-à-dire que inéluctablement on va vers une ça c'est ku ku ku waxal yàlla te yàlla tax xam nga ne. vraiment on non on c'est jeex na jeex na quoi maintenant bu ñu demee ci rupture boobu noonu mais la moo tax ñëpp aspirer à à à à une rupture mais c'est pour c'est pour vraiment refaire notre société c'est pour réformer mais tous ces micmacs la on aura l'occasion de remettre tout à l'ordre